ci suñu wàllu armature institutionnelle ni muy doxee nii ça te ça te ça te convient c'est-à-dire euh, omnipotence su exécutif bi euh, assemblée n'est pas très consciente de ses de ses de ses prérogatives alors ko am na ba mu ba mu ba mu doy oh, oh. omnipotence su euh, exécutif bi ci ci ci parfois ci ci ci ci justice bi euh, ni muy doxee nii ça te convient xam nga euh, institution yi moom comme j'ai dit mi ngi dépendre ci nit ña fay nekk tout simplement parce que ña nekk tey ci institution c'est vrai que euh, wax dëgg yàlla ku ba doon saako booy gouverner nga am majorité bu lay permettre nga gouverner majorité bu lay permettre de gouverner nag du tere aussi ñoom seen jëm bopp kenn ku ci nekk bu amee gis-gis parce que loolu mooy rôle lu assemblée même bu ñu ànd ak yow ñu war la ko mën a wax donc assemblée bi amul dara loo ciy changer nit ñi ci boppam ñu war a changé député du tere député nag war na ànd ak parti au pouvoir parce que d'ailleurs loolu moo gën parce que bu fekkoon ne tey jii député ànd ak parti au pouvoir xam nga ne boobaa pouvoir bi du taxaw te dañu bi bëgg bu ñuy falee bu pouvoir bi di liggéey donc du institution bi ngay changé changer. donc yow ni muy doxee nii baax na. déedéet a un problème d'homme. voilà c'est beaucoup plus un problème de député qui puisse par rapport ak li nga xam ne lii mooy seen mission ñu jël seen responsabilité ça ne veut pas dire que ànd ànd ak nit du tere nga wax ko dëgg. boo fekkee ne jàpp nga li muy def dëgg par exemple donc da ngay garder nañu garder le même régime présidentiel pour man régime présidentiel bi vraiment d'abord ci juróomi at yi ñu ñëw gëm naa ne su ma jëlee su ma yàlla tegee ji bopp réew mi euh, doo du ci changer peut-être lu bari ci institution yi ah bon waaw oui. conseil économique social da koy maintenir. mais mën naa ko bañ a maintenir mais dama ne du ma ci changer lu bari. du ma ci changer lu bari xam nga problème bi c'est pas les institutions le problème mooy ña fa nekk ak lañ fay liggéey. tey jii nii ku la waxoon gëm naa ne ku la ne limal mu fukki xam nga conseil économique social mi ngi fi depuis depuis combien d'années maintenant. <laughs> ku la waxoon limal mu fukki conseil xamoo leen conseil mën naa am sax boobu mu tane parce que politique yi ñoo fa ne su ma yokkoon lim bi nelaw la limal ma fukk ak juróom doo ko mën te mën naa am wax nga ci député yi donc peut-être loolu donc ça veut dire que quelque part il faut se poser des questions nit ñi fay liggéey ak peut-être ni leen di tànnee loolu peut danaa ko remettre en cause alors surtout conseil économique social environnemental